Cool. ay aywa météo di jour euh, euh, Nafi Fall lañ ci àndal chers téléspectateurs je vous présente la ravissante Nafi euh, elle sera avec nous tous les matins Nafi ñu lay dalal dérouler le tapis rouge malheureusement on n'a pas un tapis rouge on a un tapis noir mais bon tout propre et puis on te déroule le tapis en tout cas bienvenue chez toi Chérif nga ni. merci Fati <laughs> merci Fati maa ñëpp. voilà El Hadj Malick nee na nga jox ñu yére bi <laughs> yére bi rafet na mais comme Nafi dafa bëgg tapis rouge. <laughs> merci beaucoup Faty. bienvenue maa ngi nuyu ñëpp. Mm-hmm. yaa ngi nuyu ñëpp ñëpp a ngi lay fay en tout cas mm-hmm. Nafi Fall et puis ni ma leen ko waxee xam nga euh, xibaaru jaww ji dafa bokk ci euh, information yi parce que kenn ku nekk bala ngay génn. Mm-hmm. Euh, bëgg nga xam jant beeg na mu xëyee parce que parfois comme sama genre nga def veste génn tàng soo xooloon peut-être température yi di nga amal loo fàgguwaale donc ñu wax peut-être ci information yi aju ci température Dakar ak itam Sénégal de façon générale. dëgg la Faty te te mm-hmm. ñu ñu seetlu ni euh, li ñu gis euh, fan yi mooy que ni tàngaay bi des na si dëkk bi te li koy mm-hmm. waxal mooy nawet bi nga xamante ni mu ngi nekk di wàcc mm-hmm. en tout cas loolu lañu ñu ANACIM xamal nawet bi mu ngi wàcc euh, presque dans tout le pays mm-hmm. sauf dans le sud du pays fi nga xamante ni gis nañ ni que ni am nañ fa ay risques de pluie dans les quelques dans les jours à venir mais leneen li nga xamante ni mooy waral tàngaay bi aussi mooy ngelaw loolu nga xamante ni mu ngi jógee dans le désert du ñu koy wooy ngelawu Harmattan si dëkk bi nag dina jaar dans l'est et le nord loolu moo tax région yi nekk boor yooyu mhm. mooy gën a tàng te loolu sax la ñu am fii bu ci mel ne Matam gis nañ ni que ni euh, tàngaay bi dina fa kii nii dina fa gën a fës mhm. daanaka foofu dinañ fa am 42 degrés Celsius daanaka mooy gën a tàng si dëkk bi mhm. ak un ciel euh, partiellement nuageux mais leneen aussi lu ñu mën a joxe si information météo mooy que ni euh, nuage yooyu dinañu gën a fës nag dans littoral du pays et dans le nord du pays fu ci mel ne Dakar Saint-Louis bu ñu ñëwee ba dans le centre précisément à Louga ba ci booru Thiès dinañ gis ne que ni foofu dinañ fa am prédominance des nuages mm-hmm. sur le reste du pays aussi c'est les passages nuageux ñoom ñoo fi des mm-hmm. leneen aussi lu ñuy am euh, ci information météo mooy que ni dinañ am ay vents de secteur euh, nord-est mm-hmm. et des vents de secteur euh, sud-est sud-ouest plutôt avec une vitesse de 20 kilomètres à par heure donc d'intensité faible à modérée température yi sànq euh, dina gën a fës ci euh, penku réew bi ak euh, si kii bi centre bi fu ci mel ne maatam maa ngi ko doon wax sànq dinañ fa am 42 degrés 42 degrés à l'ombre c'est beaucoup hein waaw c'est beaucoup c'est moo gën a tàng <laughs> mm. dans le centre dinañ fa am 38 degrés précisément à Diourbel mm. ba ci Kaffrine 38 degrés yooyu mu ngi ñëwaat 36 mm-hmm. degrés dinañ ko am dans le sud-ouest euh, précisément à Kédougou dans le sud presque fépp 35 degrés lañ fay am presque Sédhiou Kolda ba Ziguinchor léegi ñu dem si suñu marée haute yi mm-hmm. ñu gis ni que ni on a choisi les marées pour euh, Saint-Louis ñu gis ni que ni marée dinañ ko am à partir de 7h44. Mm-hmm. et à partir de 20h18 marée basse yi ñu ngi koy am euh, de à partir de 1 et 34 ak 1 euh, à partir de 14h09 toujours avec les éphémérides. Mm-hmm. ñu gis ni que ni lever du soleil dinañ ko am à 6h 7h06 du soleil dinañ ko am à 18h39 du coup on aura perdu. 21 minutes de clarté. Mm. merci Fatou merci beaucoup euh, Nafi. à tout à l'heure ñu gën a yaatal c'était Nafi Fall. moo ñu doon présenté euh, xibaaru jaww ji muy la météo du jour li ma leen doon wax sànq nag. Mm. Euh, macha allah aussi ravissante que compétente <laughs> Nafi en tout cas. Euh, bienvenue chez toi c'est un plaisir et puis euh, une page de pub wala sax benn petite pause et puis on reçoit Marcel Marone.